asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne si yéen a tàmb seetaan chaîne bii di jàng anglais ci wolof euh, suñu leçon tey bi nag mi ngi jëm ci nooy laaj nit ki noo tudd ak foo dëkk genre euh, avant tout ñu ngi leen di ñaan ngeen abone euh, aimé vidéo bi dangeen ngeen partagé ko pour que ñeneen man cee jariñu allez let's go soo bëggee laa nit ki nu mu tudd lii nga koy wax what is your name what is your name noddu what is your name what is your name wala nga ne ko what's your name what's your name noo tudd c'est la même chose what is your name what's your name noo tudd léegi soo bëggee wax ni nga tudd danga naan my name is Ali my name is Ali wala nga ne my name's Ali maa ngi tudd Ali wala Ali laa tudd my name is Ali wala nga ne maa ngi tudd Ali my name is Ali my name's Ali soo bëggee laaj nan la sa papa tudd danga naan what is your father is name what is your father's name wala nga ne what's your father's name nu sa baay tudd what is your father's name wala nga ne what's your father's name nu sa baay tudd what is your father's name what's your father's name nu sa papa tudd wala nu sa baay tudd léegi nag euh, loolu li ngay tontu mooy my father is name is Tafa sama papa Tafa lu tudd walla nga ne my father's name's Tafa wala nga ne his name is Tafa yooyu yëpp ñoo bokk mooy sama papa Tafa lu tudd my father is name is Tafa my father's name's Tafa His name is Tafa. His name is Tafa. son papa Tafa lu tudd ñett yooyu yëpp ñoo bokk même li ñuy li ñuy signifié my father his name is Tafa my father's name is his name is Tafa. Tafa la tudd. Euh, léegi soo bëggee laaj ñu sa tudd lii ngay wax is your mother's name what is your mother's name nu sa yaay tudd wala nga ne what's your mother's name what's your mother's name nu sa yaay tudd ñoom ñaar ñoo bokk quoi what is your mother's name what's your mother's name nu sa yaay tudd c'est la même chose What is your mother's name? What's uh, bu boobaa li ngay tontu mooy. my mother is name is Nafi sama yaay Nafi la tudd wala nga ne wala nga ne her Nafi la tudd ñett yëpp ñoo bokk my mother is name is Nafi. My mother's name's Nafi her name is Nafi sama yaay Nafi la tudd my mother his name is Nafi my mother's name's Nafi her name is Nafi sama yaay Nafi la tudd. Euh, léegi soo fekkee danga ngaa bëgg a wax comme nu sa euh, sœur tudd wala su frère su boobaa fi ñu def phase wala maa foofu ngay remplacer comme da naan. what is your sister his name is wala what is your brother his name is ngay boobaa danga naan my brother his name is Ali my sister his name is Nafi boobaa foofu rek ngay remplacer quoi voilà. léegi soo bëggee laaj nit ki fu mu dëkk danga where do you live foo dëkk where do you live where do live where do you live foo dëkk where do you live foo dëkk su boobaa li ngay tontu mooy I live in Dakar maa ngi dëkk Dakar I live in Dakar I live in Dakar Dakar laa dëkk wala maa ngi dëkk Dakar I live in Dakar Dakar laa dëkk comme ni leen ko waxee woon rek yii yëpp pour nga jàpp ko dangeen koy répété di ko wax quoi moo tax nga koy jàpp anglais noonu la loo dégg rek da nga koy répété di ko wax moo tax nga koy gaaw a jàpp doo ko fàtte. donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox euh, dig daje ci beneen leçon te gars yi di leen ñaan ngeen euh, abonné te partage vidéo bi ok jaay ngeen jëf thank you so much.